ñu ngi leen nuyu di ziaré walu TV tam ni ñu koy défé ci buntu kër Maam Cheikh may Fall lam farba Baabul waye xamné bu ne buñ nee ñaar fukki fan yi xel dé dem si Maam Cheikh ibrahim Fall lam Fall Baabul ñew gi nga xamné ci la ñëw woon ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci mbacké kadior bis boobu nak lan daan magal niki ñaar fukki fan ci weeru koor waye nak jambar daan ko def ku baax ku bëggul baax di deret di Maam Cheikh may Fall lam Baabul Diina mu sëñ Cheikh Fall Khady Gueye di ko ñaanal suñ borom subhaanahu wa yokk ay leeram yaata xéewalam fam nekk eh, njaboot gi mu fi bàyyi suñ borom teg ci ñoom loxo ziare bu baax nag ki nga xam ne mooy kilifa eh, kër gi muy Serigne Cheikh Jimbu Fall xalifa maam Cheikh May Fall Lamba dina ñu koy ziar di ko ndokkeel ndokkeel bu baax a baax ki nga xam moo fi toogal eh, Serigne Cheikh Fall Xadigéey mu Serigne Fallu mu Serigne Cheikh Fall Xadigéey ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel am am ci ndigal nag lolo tax ñu ñëw fi ci ke seigne Moustapha Fall euh, seigne Moustapha Fall euh, euh, ndigal mo takko de der mo tax ñu ñëw fi ci kërëm ngir jotri ay kàddu xam naa dañuy jox abdullah hat Fall mu sëriñ Cheikh Fall xarigéey mu yëkkat ci ay cadeau ñi ngi and ak waaru TV ak radio Sig FM Mbàkke 93.8 kon sëñ Abdoulahat ñu ngi lay jaare ci bis bi nga xam mom lañuy wajal mu ñaar fani koor gi noo sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba di yeesal suñu njébal si Ibrahima Fall Baabul Muridiina di wax ci ndigalul suñu ay kilifa di ndigalul Serigne Mountakha Mbacké xalifa général di Mouride Serigne Cheikh Jëm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Fall Fall jëwriñ sëñ Modou Amine ak sëriñ Moustapha jëwriñam di wax ci turu Serigne Fallou Cheikh moom Serigne Cheikh Fall Khady Gueye xam ne mooy jëwriñu kër gi di wax ci turu jëwriñam seex naa ko sëñ Moustapha takk der ya aw turam la ñuy wax waaye lépp nag sëñ Moustapha mi ngi jot ndigal ci kilifaam sëñ Fallou Seex ngir jotale ay kàddu yoo xam ne mu ngi ko jële woon ci xalifa général di murit ginnaaw bi mu jaaree ci kilifa yi mu war a jaar ba noppi sëñ bi yabalaat ko sëriñ Muntaxa mu jëliwaat fa ndigal ngir tàggoo waat ci bis bi ba xam nuñ koy doxalee sëriñ bi nag mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te am tawféex di am mbégte di sant bu baax bi ñu sama borom fekkee fekkaloo waatee jatawaay bi bañ man koo fekkee yàlla nañ ko fekkee at yu bëree bëri te maandu gu wér ak tal te ñaandu ko suñ kilifa yëpp barke sëriñ Touba barke ma Cheikh Ibrahima xanaa rek di jotli ay kàddu yoo xam ne kàddu leeral la yoo xam ne bi Serigne Moustapha mi moo ko jëlee woon ci sëriñ Serigne Ahmadou taxaa ci ginnaaw bi mu jotee ndigalul Serigne Fallou Cheikh mu yebal ko ci Serigne Mountakha ba mu demee tàgguwaat ko di yeesluwaat ndigal ci bis bi sëñ Muntaxa xamal ko ne ko bis bi kat sama bis la ndax kookee nga xam ne moo daa def bis bi muy Serigne Cheikh Fall Khady xaritu xol la ndax ñoom ñaar ñoom ñaar yàgg nañ lool daal di wax ne moo sëñ Cheikh Fall Khady Gueye de maa ngi moom dañoo teel a gindikoon ci sëriñ bi kon loolu yàgg la daal di wax ne nag bis bi kat mën nañ koy wéyal waaye niñ koy wéyalee comme nañ ko def comme bis yi nga xam ne daa jàll muy daaw ak ren jii niñ ko doxalee woon daaw muy def ko ci màggal ko ci Pastef màggal ci Pastef nag mooy aji dem ju ne dañ koy ñaanal ndax ñaan moom du doy su ñaan doon doy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko ñaanal kon nag noonu ñuy ñaanal yonente bi di ko ñaanal Serigne Touba mi nga xam ne moom la Cheikh Fall gis gisante la woon ba bis bi a am kon dañ leen di fàttaliku di leen ñaanal ñaan nag ah ku am ay ñu dem bàyyi la ginnaaw ngay doom ju baax faaw nga di leen ñaanal sam xel du ci jóg waxtu mu ne saa yu ne nga di leen ñaanal noonu nag la ñuy ñaanale ñoom ñi nga xam ne bii ñoom moom bis bi sosoon ko ka ci jëkk mooy ñaar ñi seqoon bis bi muy Serigne tubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall ka topp mooy Serigne Cheikh Fall Khady Gueye mi nga xam ne moo doon taxawal bis bi di ko doxal ànd kook ay kilifaam ak njabootu Cheikh Fall gépp mosu cee génne kenn ñëpp la ko ànduloon kon nag ñaan googu rek la sëñ Mountakha wéel nañ ko wéel ñaanal ñaan gi nag jàng alxuraan ci la tudd yàlla ci la def ay salaatu ala nabi ci la benn ci la waaye sëriñ bi dafa wax daal na yaraax comme ni ñu wéele woon bis yëpp bis yi nga xam ne moom ci la joxewoon woon ndigal ñu defe ko noonu bis bii ñëwee nañ ko defe noonu loolu la sëñ Fallou Cheikh yónni woon ci sëñ Mountakha ci sëñ Moustapha mi sëñ Moustapha sëñ Mountakha loolu la ko wax boobu maa ngi toog kon nag sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali bokk yëpp fu waaye ne daal na nga xam ne bis bi sëriñ tubaa maam Cheikh Ibrahima Fall jébul woon ci sëriñ tubaa bis ba agsi na mu doonoon ñaar fukki fan ci weeru koor di bisub dimaas bis bi nag ren altine lay doon fépp fu waaye ne di dégg suñ kàddu ñu ngi wax ci ndigalu suñ ay kilifa muy Serigne Fallou Cheikh ay ay ak ay kilifaam Serigne moussa mi nga xam mom la jaarale ndigal ci mom fépp fu ne di dégg suñu kàddu suñu kàddu wala nga ñuy seetaan bu bu bis bu delu sé na nga berndel Cheikh Ibrahima Fall ak serigne Cheikh Fall khadige ak njabot Cheikh Fall yi nga xam ñoo taxaw doon bis bi ci jang alquran ak jang xasida tudd yalla def ay asalaatu ala nabi lol daal la ko sëñ bi bëggee ñëpp doxé ko noonu yi. ñoo ñaan nak sama borom yobbu ñu ci jamm ñu am ci tawféex ñu am ci ngërëm. sëñ Cheikh Fall Khady Gueye mm, sëñ Modou Moustapha mooy waajuram ak Soxna Khady Gueye Soxna Khady Gueye sëñ Modou ñaay sëñ Modou Gueye ñaay bokk na ci mag ñi gàddu gàddaay woon Gànjool ñëw fekki Seeraan Fall jébbalu ci moom. kooku nag moo jur waajuru sëñ Cheikh Fall Khady moo tax ñu naan sëñ Cheikh Fall Khady sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ah, bi muy feeñee jamono fi nga xam ne fi la ñuy jaarale doomi soxna yi waajaruma ma sëñ Cheikh Mamadou Moustapha Fall jaarale na ko fi jaarale ko ci njàng ci maam Ibrahima Mbaye mu jóge fa dem ci sëñ Fallou Mbacke fa la tarbiya bali gaa yu baax yëpp am di ko am mu am ko nit ku baax la woon ku dëgg la woon ku tege ci aw yoon la woon ku mën a gindee la woon nit la woon koo xam ne boo mosaa jàkkaarloo jëmmam rek di nga xam ne Cheikh Fall nga jàkkaar lool boo amee loo xam ne di nga ko mën a roy ci moom di nga ko jël noonu kii mooy sëñ Cheikh Fall Khary am na dama ci lu mën a sori nag ndax mbir mbir so so la jegee doo ci mën a wax lu bare bare waaye ñun daal ab royukaay lañ ko def royuñu kenn ko dul moom noo ngi ñaanal ñëpp nag di ñaanal njaboot serfal gépp di ñaanal si Ahmadou Ban Muntaxa sama borom yàggal ko ci wéral ko fi di ñaanal suñu Cheikh Jom Fall di ñaanal njaboot suñ Tuubaa gépp di ñaanal serfal di ñaanal njaboot gépp di ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci suñu kanam it sama borom bàyyi leen fi ban yàgg taxawoo bis bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu yéen bokki taalibe yi yéen bokki jullit yi yéen bokki lislaam ñëpp moom nga li matala wax tax naa sëñ ndigal sëñ bi ndigal mu wax ko ba noppi mooy looy laa jële woon sëñ bi te ay kàddoom rek mooy samay kàddu mu ni ma ko waxee rek noonu la ko sëñ bi waxee xanaa di ñaan nag ci daraje sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra mi tax ñu di ko woote man mi tax ñu di ko woote mu defal nu ci ndimbalal biir ak lu biti taxaw taxawunu bu baax a baax ba ni ko sëñ bëgg ñu defale ko noonu ba tam a wen des ci barke sëñ bi sëñ moom mu ngi ko yëgal murid yëpp yoon yoon yoon yëpp daal la ko yëgal waaye nekk rek waaw te tuddoo lislaam rek ak ko mën a doon foo mën a bokk rek na nga ko defee foofa waaw nee na loolu ko suñu waxee rek na yaraax waaw na na yaax jàng loolu ko suñu waxe rek jàng alxuraan tudd yàlla salaat na bi waaye man na nga def ko waaw ñu ñaan rek waaw Cheikh Fall nee sëñ bi la joxe boppam boppam Mbàkke Kajoor foofu la ko joxe woon de ci ñaar fukki fan weer yi nga xam ne ci la ñu dugg bis bi nag moom bisub dibéer la woon màggal gi ren nag di altine ñoom benn bis rek dox seen diggante foofu la jaayante woon na joxoon ko boppam joxoon ko léppam nag ngir jëmmi ngir jëmmi sëñ bi ndax moom boo mos a koom boo ne sëñ Tuubaa rek Cheikh Fall rek ci teg moom loolu la yàlla dogal koo ma koo mën a doon nag ak koo ko mën a dendale rek. faw dana am ñu ko laajte waaye boo ne sëñ Tuubaa ni Seex Ibra Faal mu kenn ko naatable loolu moom ñëpp maase nañ ci kon nag noonu ko suñ bi waxee rek noonu rek lay wéyee nañ ko jàppe noonu di téye ko noonu yi jàpp waaw fii nag wax nag laa mënul fi mu ndegam sëñ bi wax na daanaka rek doy na sëkk waaw doy na sëkk yéen daal sëñ baa ngi leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal ba ni ngeen ko bëggee ndax rajo boobu ko sunu rajo wa waaw sunu rajo ko yor sunu lépp la te bis bii def day kenn ëppale ko ci kenn mënu ko ci doxal moom la ci dox nag hmm. kon noonu bu sëñ bi waxee rek noonu rek la waaw te jëwriñ yooyu ya nga xam daal mooy yeta kaw bay ci suuf ak ñi bokk Cheikh Fall ñëpp daal ñoo bokk bis bi noonu ko bëggee rek nañ ko defee noonu yi rek ci barkeb sëñ bi waaw jërëjëf jërëjëf sëriñ Maam Ngounda Fall ci sëtu Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñu ngi gunge ci biir jotaay bi waaye jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Abdou Lahat ak suñu bay yi di bay pam yi nga xamne moñu moñu ñu moo ñu won moo ñu won ak sëriñ euh, Basirou Diop ñom ñep ñu ngi leen ziar suñu wëllëre da ñofi dajé ñu ngi ziar wax di len ndokkeel di ñaan rek bis ba ñu ci seeg jàmm ñaanal serigne muntaha suñu borom yàggal ko fi lool and ak wér ak taalibeem bu mag ba serigne Cheikh jëmm ak ki nga xam moy serigne jëru mi serigne Fallou Fall mu serigne Modou Aminta ak borom jabootu sa maam Cheikh may far yep ak fukki buntu yeeg keur ñaar yi fukki buntu ki fukki buntu keur yeeg ñaar yi mam Cheikh may far ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu baax di leen dokkeel te di leen ñaanal jàmm ak tawfeex kon sëñ na xam naa ba ci kanam incha allah di leen wax salaamaaleykum wa rahmatulah lii mooy wàccaal yi nga xam ne mooy màggalu ñaa fukki fa yi eh, tombe nag njébbalu maam Cheikh Baye Fall Lampa bi mu diina